Mamadou Mbodj euh, ñu ngi leen nuyu. ñu ngi leen di fay leen sargal nuyu sénégalais yëpp. leen ñaanal jàmm. <laughs> yow yaay euh, coordonnateur F24 euh, tey ajuma ji euh, muy fukki fan ak ñaar gannaaw ba M23 wala mouvement du 23 juin fii ci Sénégal nekkoon ab coalition bu tënk ay parti politique ak organisation société civile ñu créé ko woon atum 2011 boobule coalition nag manko woon ngir xeex ñetteelu candidature ki fi nekkoon président di maître Abdoulaye Wade. tey fukki at ak ñaar lan nga jàpp ci bés le di 23 juin. Euh, li ma ci jàpp mooy euh, li nga xam ne mooy euh, lii sénégalais yi yu bari jóg wane seen bopp wane na ñoom ànduñu ci ñuy salfaañe yoon wi ànduñu ci ñuy salfaañe constitution ànduñu ci ñu leen di teg loo xam ne xel jot jàpp jàpp ko hmm. te jom jàpp ko donc esprit boobu muy muy wane indignation muy wane euh, seen euh, ànd ci ci lu jub ak lu baax donc loolu moom esprit boobu moom laa ci jàpp mm-hmm. te kontaan ci wax dëgg yàlla ci ni nga xam ne mag yi ak xale yëpp jóg nañ ànd ci benn élan wan euh, ñi fi nekkoon ne mënuñu nangu ñu leen teg loo xam ne teguwul mm-hmm. lolu wax dëgg yàlla am fierté lañ ci am lu am ci daal souvenir bu baax a baax a baax boo xam ne day wane que Sénégal ay nit ñu jàmbaar ñoo fi nekk ay ñu am jom ñu fi nekk ay ñu bëgg dëgg ñu fi nekk ay nit ñu am ngor ñoo fi nekk. Euh, tey fukki at ak ñaar mu mel ni beneen euh, plateforme bi ni mel euh, judduwaat na mu nekk F24 bu ñuy comparaître ñaari organisation bi lan lañ ci mën a jàpp ci ñaar yooyu. waa li mën a jàpp mooy que comme ni ma ko waxee rek mooy sénégalais dañoo nanguwul loo xam ne du jub dëppawul ak dëgg mm-hmm. dëppawul ak ngor. dëppoowul ak jom nanguwuñu ñuy salfaañe seen constitution donc euh, lii moo am euh, en deux mille onze moo am tey également ci deux mille vingt donc loolu moom ñoo ko ànd waaye nag xam nga li nekkoon deux mille vingt li nekkoon deux mille onze ak li nekk fii du benn mhm. du dina benn ndaxte boo xoolee nguur gi fi nekkoon ak bii dafa wuute nguur gi fi nekkoon quand am nañu woon ay ndëng ndëngate waaye ñi ñoom dañoo ndëngate boole ceek euh, la ñuy wax euh, daal euh, jaay doole jaay doole ut doole bu bari nag di ko jaay nit ñi donc euh, du ñu bañu ñu tëj nit ñi bañu ñu rey nit ñi ak ay fetal ay bali fetal bal reyal bañu ñu torturer nit ñi donc muy pouvoir boo xam ne bële ak bii am na lu ñu wute mouvement bi itam am lu ñu wute parce que bii boo seet sax moo ëpp doole ba fi nekkoon mm-hmm. ndaxte ñoo gën bari dañoo gën a en tout cas organiser euh, ñi fi nekk ñoo gën a organiser ñoo gën a bari euh, te ñoo gën a xëy na également takku euh, ba fi nekkoon. Mm-hmm. donc contexte bi du benn ñi acteurs yi am na ay différences yu bari mais surtout pouvoir bi fi nekk ak ba fi nekkoon. dañoo wuute. Euh, tey euh, benn similitude lañ mën a wax maanaam euh, M23 da doon xeex troisième mandat vingt 24 tey tam day xeex troisième mandat lan nga jàpp ni war nañ ko mën a teg ngir xeex ñetteelu candidature président yi parce que à ce rythme boo matul fii ak quelques années fi nar a toogaat dinañ ñëwaat xeexaat ñetteelu mandat. waaw xanaa di naqaru déjà li nga xam ne mooy li toog ñu xeex 2011 ay nit gaañu fi ay nit. yàqale fi euh, ay dégâts ay morts lépp am fi mm-hmm. ñu xëyaat douze ans après ñu di ko defaat loolu moom dañ koy naqarlu mm-hmm. wane ne Macky Sall mi nga xam ne moom la xeex bi doon xeex 2011 profité mm-hmm. mu ñëw dañu tegaat lii loolu moom lu ñu war a naqarlu la wane que moom démocratie sénégalaise jëmale ko kanam te ko jëmale gannaaw te loolu wax dëgg yàlla euh, du loo xam ne rafet na ci moom rafet na Sénégal euh, loolu lañu ñu njëkk a naqarlu li ci topp nag mooy ñu xa ñu xam ne. bu fekkee Macky Sall la teg na loo xam ne tegu ci dëgg parce que moom constitution bi mayu ko moom am troisième mandat euh, bu fekkee dafay ut troisième mandat dafay ut loo xam ne mooy li def coup d'état constitutionnel bokkul ak coup d'état militaire waaye daanaka benn la euh, bu defee candidature nag moom mooy tentative de coup d'état constitutionnel donc bu fekkee ne tegul loolu ci dara dudul ci nafsu ñi mu àndal seen intéret ak li nga xam ne moo leen neex ak seen bëgg teguñ ko fenn dul jaayuñu doole di ñu teg loo xam ne àndul dëgg àndul ak jom àndul ak ngoor bu boobaa ñoom bu liñ bëgg bu antoo mooy nañu teg li ñuy wax dictature maanaam fii ay jaam la ñuy teg parce que lu leen neex rek la ñuy def fi mu nekk nii nañ suul dëgg suul ngor suul jom donc bu ñu réussir loolu bu boobaa fii moom euh, troisième mandat kenn doot ko wax parce que quatrième cinquième mandat sax dina fi am. Mm-hmm. bu fekkee nag ñun ñi nga xam ne ñooy askan wi. fexe nañu ba loolu amut waaw ñun ñu ngi waxtaan suñu biir li ñuy wax mooy dialogue du peuple ñu ngi xool naka la ñu def ba loolu doon fi am parce que bu ñu jàppee bu ñu xoolee bu baax li nga xam ne moo xew Sénégal xewoon fi démb mooy li ñuy wax hyper présidentialisme monarchisant mooy président boo xam ne mooy buur di bu mi lu ko neex mu def ko lu mu lu mu sumb mu am euh, muy ci député yi muy ci juge yi lu mu ci bëgg rek mu ko loolu bu fekkee yow da nga réew ŋànk lépp muy pouvoir exécutif pouvoir législatif ak pouvoir judiciaire yépp nga ŋànk ko lu leen neex rek mooy am mm-hmm. bu boobaa dangay dem ba yaakaar ne yow ak yàlla yéen a tolloo mm-hmm. donc da ngay teg sa bopp koo xam ne am daanaka dara jaay euh, yàlla mm-hmm. donc ñooñu mooy da ngay dem ba kumbal tux tuxlu dootoo xam dara li leen neex rek ngay xam te loolu tant que dañu fi defe naa troisième mois dina jafe dindi donc bu fekkee ne fexe nañ ba Macky Sall amul troisième mandat bu ñu ref bu ñun suñu waxtaan bu ñu def loolu boole nañ ko ci mu ngi waxtaan ci troisième mandat mais ñu ngi bo ñu ngi waxtaan également ci lu ñuy wax réformes institutionnelles parce que réformes yooyu ñooy mun tax benn président dootu fi nekk te lu ko neex mu def ci justice bi lu ko neex mu def ci assemblée bi donc loolu bu ñu ko defee bon yaakaar naa ne bu boobaa bu ñu fexee ba Sall amul troisième mandat déjà pas bu la parce que keneen parce que Ablaye waat jéem na ko doxul Macky Sall jéem na ko doxul defe naa keneen dootu ko jëm mais ci suñu xalaat li ñuy waxtaan loolu yëpp dañ ko dëxëñ ba tax bu ñu paree loolu wax dëgg yàlla affaire troisième mandat normalement kenn waratu ko fi wax parce que dootuñu may benn président muy def lu ko neex ci justice bi ak ci bi. Euh, jamono ji mu demee Paris ci ab euh, sommet président Macky Sall euh, partisans yi daan nañ ko jey ak militants yi ci noonee nag mu mel ni rek ubbi na ab buntu ci ñetteelu candidature am ndax jàpp na ni nee na ci gémminam la génnee nee nañ ndax seen liggéey ñoom dinañu def seen kéem kattan ngir rek toogaat ci pouvoir bi ak volonté askan wi ban lecture ban jàngat. jàngat nga def ci kàddu yooyu. day fàttali euh, ci biir saal bi am nañu ko fa euh, tàccu jëy ko waaye ci biti am nañu ko fa yóoxu itam. Mhm. donc euh, wax ne loolu mooy dëppoo ne rek ñoom Macky Sall ak ñi mu àndal ñoom ay rek lañ bëgg ci réew mi parce que bañ fi nekk ba léegi ñaari at ngi nii ay ay rek ñoo fi nekk ñu teg ne dañuy éliminer benn adversaire mhm. deux mille vingt et un ci loo xam ne teguwul fenn ay nax sax ndang rek la ñu teg ko fi ay nit di au lieu ñu teg ci suuf ñu ñëwaat deux mille vingt trois ay nit ay nit ñu bëri faatu ci yàqu bu bëri am ci au lieu ñu teg ci suuf ñu mel ni dañuy dem dañuy dem ci kanam ñoom li ñu bëgg daal mooy ay bi sax ci dëkk bi te ñun sénégalais yi moom ñoo war won woon Macky ne ay bi doyal nañ ci doyal nañ ci procès yoo xam ne euh, amul lu bopp amul genn doyal nañ ci muy jaay doole euh, par exemple jël Ousmane Sonko euh, barricade këram jël signal yi Walfadjri tëj ko jël. journaliste tëj leen jël ay ñoom euh, Bassirou Diomaye Faye ñoom euh, Fadilou Keita ñoom nit dafa yëpp tëj ci kaso bi donc loolu il faut ñu woon que ne doyal nañ ci te buñ ci doyalee buñ ko bëggee wone moo tax suba sax ñu ne na ñëpp sol lu weex ku mënul sol lu weex ngay am mouchoir bu weex wala écharpe bu weex wala loo am lu weex rek nañ ko takk sa oto takk sa buntu kër ñu woon Macky Sall ne ñun waxkat jàmm lañ bëgg ci réew mi parce que ñoom dafa mel ni ay ay bi lañ bëgg muy continuer te ay bi bu continuer bon du baax ci réew mi donc euh, euh, loolu daal laa ci jàngat mhm. mooy ñoom dañoo tux dañoo tëx lu gumba li ñu xool rek mooy seen bëgg-bëgg ne fokk daal ñu am ñetteeli mandat ci seen euh, nafsu topp seen nafsu top seen biir ak seen bakkan donc loolu daal moo tax ñu bëgg ñu jaay doole parce que bu ñu fi toog bu ñu fi naree toog luñ fi duñ koy teg ci loolu dëgg ak jaay doole loolu dëgg ak jaay doole rek lañ koy teg hmm. pour imposer ñu troisième candidature. Hmm. te loolu wax dëgg yàlla defe naa ne askan wi waru ko nangu. Euh, kenn ci avocat Ousmane Sonko maître Juan Branco depuis Paris amal na benn point de presse euh, nee na am na ay preuves euh, yu doy ngir yóbbu président Macky Sall ci cour pénale internationale ndax da ngay soutenir boobu idée. waaw ànd nañ ci parce que bu fekkee moom la def na ko baax na waaye ñun ci suñ bopp ci biir fii Sénégal am nañu avocat yu xarañ ak ay organisations yu xarañ yoo xam ne ñu ngi ci ñu ngi ci dox. te bu ñu paree ñoom itam dinañ déposer CPI maanaam daal Sénégal dafa euh, siife ay sart yoo xam ne da koy tere mu torturer da koy tere mu rey mu ay manifestation mu rey leen ak ay bal reyal te loolu moom lañ gis fii deux mille vingt et un moom lañ gis fii deux mille vingt trois te bu fekkee loolu la mooy euh, war nañ leen yóbbu CPI parce que waxoon nañ fi ñoom dañu def enquête deux mille vingt et un mm. ñaari at a ngi defuñu dara mm. donc ren jii mënuñu bàyyi loolu yëpp jàll. donc euh, bu ko defee baax na euh, bu ko deful itam ay sénégalais dañ ko def euh, wax dëgg yàlla CPI moom dafa am yoon parce que li te CPI ter yëpp moom la Macky Sall ak a ñooñam def. ndax ànd nga ci conclusion yi tukkee ci dialogue national bi président Macky Sall woote. xam nga mënuñu ànd ci loo xam ne d'abord ba muy commencé xamoon nañ ne lii daanaka dara ci génn. Mhm. amoon nañ nag yaakaar que pour lëndëmal xel yi dañu am quelque chose duñ def ay ay ay accords yu ndaw. te loolu moo am mooy article yi nga xam ne dañ ko dañ ko dindi pour que Khalifa Sall ak euh, Karim Wade jàll loolu moom euh, gisoon nañ ne lu war a mën a nekk la waaye li nga xam ne mooy alkalaj bi li nga xam ne moom moo tax Sénégal nekk ci guuta nekk ci guddi gu bët sërgul mooy troisième mandat bi te loolu xamoon nañ ne ñoom duñ ci dellu ginnaaw euh, te loolu moom lañ gis ci accords yi donc loolu mënuñ ci ànd tey mënuñ ci ànd suba mm-hmm. donc parce que loolu moo ci gën a am solo mooy troisième mandat bi ak naka la def Sénégal bi am jàmm donc jàmm boobu ñoom bëgguñu ko li ñu bëgg mooy euh, fitna bi Euh, donc euh, loolu daal lañ jàpp tey jii. Euh, euh, ñu wax ci préfet bu Ndakaaru tey euh, tere na déclaration manifestation yu waroon amal tey ci ajuma ji ak suba vingt cinq juin Mor Talla Tine tere rassemblement coalition Yewwi Askan Wi ndajépp groupe Walfadjri ak mouvement des forces vives de la nation. Euh, loo xalaat ci boobu boobule euh, décision ndax yéen F24 euh, di ngeen ci plié wu. waaw xam nga loolu mooy wane dérive dictatoriale yi maanaam ñoom loi tegatuñ ko fen jaay doole rek lañ fi nekkee donc puisque jaay doole rek lañ fi nekkee bon loolu ñun mënuñ ci ànd. mais nag dëgg la ñun F24 prévoir wu ñu woon dara loo xam ne ñoom mënuñ ko tare parce que am na dégg naa sax ci benn njuumte lu ñu wax. ñu naan mouvement des forces vives kooku M23 la waaye du F24 donc F24 prévoirul loo xam ne mën na ko tere parce que ñu liñ prévoir suba mooy sénégalais yi sol lu weex mhm. euh, sol lu weex takk lu weex bu fekkee seen buntu kër la bu fekkee seen oto la bu fekkee ne seen écharpe la ay ruban lu weex rek nañ ko tàll euh, ci mbedd mi wane ne Walf Fadjri kenn warul couper signalam wane ne détenu politique yi dañu war a libéré wane ne Ousmane Sonko fa mu nekk dañ ko war a dindi mu dem tabaski tabaski pour tous mhm. donc loolu ñëpp dañ ko war a xeex wane ne sénégalais yi doyal nañ ci ay bi doyal nañ ci fitna bi donc loolu lañ bëgg sénégalais yi dégg ko sol lu weex wane ne ñoom jàmm lañ bëgg jàmm lañu xam dañoo bëgg réew mi dal te bu fekkee bëgg nañ ko dañ ko woon Macky Sall won ko ko sol lu weex loolu préfet mënu ko tere président mënu ko tere kenn mënu ko tere ginnaaw yàlla donc loolu ñu wax moom moom ñoom mënuñ ci dara na ñëpp sol lu weex rek ñu ne ñun jàmm rek lañ bëgg ci réew mi. Eh, gannaaw bésu pa sol lu weex lii lan moo ciy topp. Euh, bu ñu paree bés bi parce que waxoon nañ ne bi ñu patron am seetsee am na sax ay imaam yu ñu woo ne ñu daal wax dëgg yàlla bu ñu sañoon ngeen teg lépp ba tabaski passé bon loolu jëfee nañ ko bu passé nag. Mhm. ñu bëgg le 14 juillet sénégalais yëpp yëpp ñëw ñu dajee def ay rassemblement yu mag a mag parce que jàmm ci la lépp xaj. te ñoom fitna lañ bëgg ñun nag pour ñu wan leen ne fitna soxluñu jàmm ñu soxla ñëpp ñëw daje nu ñu gën a baree rek nañ ko defee noonu ñëpp ñëw la 14 juillet ñu def rassemblement boo xam ne mosul am Sénégal ñu won Macky Sall ak ay ñoonam ne ñun troisième mandat soxluñu bëgguñu ko wan ko ne ñun ay jàmm lañ bëgg bëgguñu fitna wan ko ne li mu nekkee ci dëkk bi di tëj nit ñi di couper signal yi di éliminer ay adversaires comme Ousmane Sonko d'accord ci loolu donc loolu bu ko defee noonu yaakaar naa ne. ñoom dañ dañ créer li ñuy wax force dissuasive te ñoom xanaa dinañ dellu ginnaaw bu boobaa. Mamadou réew mi FM mu ngi lay sant di la gërëm. maa lay ma leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal jàmm. voilà di fàttali yaa di coordonnateur bu F24. jërëjëf.